cercle de réflexion et d'action républicaine di ab kuréel gu nga xam ay ndawi APR ñoko taxawal ci dëkk bu sell bi di Touba laataa ñuy dajé Cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacké di ko jukkil ay masque ñeel màggalu Touba fësal nañu seen i mbëbët. président joxé ndigal nañ dund ak fébar bi nañ jéem dund ak doomu jangoro bi mu wané ci tamit matuka yu mat sëkk muy magal gi ñu organiser di 18 safar nga xam rendez-vous la bo xam sénégalais ak adduna yépp xam nañ chaque année day am Touba. te moment bi mu amee ren ku ne xam na ne jafe-jafe la sëriñ bi génn takk masque loolu nag ku di ab taalibe war nga cee mën a roy war nga cee mën a jànge kon loolu benn la ci la tax ñu ñu ñu ñu sos bisu tay bi roy ci sëriñ bi fexe ba ñi nga xam ne ay taalibe lañ te jóge faneen di ñëw di màggal si bu ñu ñëwee ni ko sëriñ bi waxee nañ wut lu toll ci juróomi millions yi masque ñu ne juróomi millions yooyu ñun nañ ci participer en tant que taalibe sëriñ Touba li ñu joxe toll na ci

bi ñoom lañ ko jox. Bassirou Diagne Khadim Sylla Bathie Sock ak ñi nu àndal profito ci boobu jotaay di wax ne jot na sëkk président Macky Sall am ndam ci dëkk bu sell bi di Touba bu nu xoolee jéego yi nga xam ne mu ngi koy def ñoom it nuyu sàkku ci ñu dooleel ndaw ñi. beneen bi ci des muy aspect politique kuréel gi li ko tax a taxawal jàpp naa ne ñun ñi ci nekk suñu légitimité historique ci parti bi jàpp naa ne may nañu ñu taxawal lu ñu bëgg ci biir parti bi loolu bokk na ci li tax ñu sos kuréel gi duñu ganti gan ci parti bi xam nañ leen ci bi ñu toogee waxtaan suñu biir xaadim wax na ko euh, parti bi li fi am neexul kenn président Macky Sall lépp lu baax mu indil Touba réalisation yim fi def yi gën a baax la ñu indil Touba te politique li ñu jàppoon mooy ku fi mën a nekk fi nekkale askan bi di def li askan wi di bëgg li nga soxla mooy vote dinañ la ko jox te c'est tout à fait le contraire à Touba.

dina àgg ci moom ñu wax ko am na jafe-jafe yoo xam ne tënk nañ ko gëm nañ ne lii bokk na ci li ñu daan yàqal waaye tamit ñi nga xam ne ay responsable lañ nekk fii ci département bi plus particulièrement ci biir commune Touba dinañ leen dem seeti waxtaan ak ñoom pour apporter ay solution ci problème yooyu nga xamante ne si ñoom ñoo am te gëm naa ne xam nañ ko léegi nag dafa jot ñun ay ndaw lañ te ñoom fi ñu daawul àgg ñun mën nañ fa àgg ku ne xam na ne parti bu ñu koy wax ndaw moo tax ñu ko wax te à 80 pour li def ci biir parti bi gëm naa ne ñun ñi ñoo koy def nit nak soko responsabiliser mu yag di def sa su ne xamna fi deung deung am xamna fi jafé jafé di am. nee mi ngi leen di gëreem bu baax baax nee na yitte ji ak taxaway bi ak Pastef bi ngir Serigne Touba rawatina nak, ci kàddu yi nga wax léegi. ne xam ngeen ne yéen ñi dëkk ci dëkk bi bokk leen ak ñu dëkkut ci dëkk bi nee na baat boobu nag lu ko lu am solo la nee na ndax lool rek moo mat a sàmmonteel su ngeen xamee ne cir bii ngeen am dëkk gi ngeen dëkk ci dëkk bi moo leen ko may kon yéen waru leen a yem ak ñu dëkkut ci dëkk bi ngeen xam ne it kon ñooña lañ sañ yeen sañu leen ko ndax sëriñ Touba mii ñu leen di xoole ndax dëkk gi ngeen dëkk ak moom kon lu ci waay di jëf rek wala kàddu gu muy yëkkati wala lu muy def rek na ci sàmmoonte ak dëkk gi mu dëkk ak sëñ Touba ndax buñ xasee ne Touba nga dëkk dangaa mel ne dangaa yóbbaale yoonu murid yépp nee na loolu nag dégg na ko ci seen biiri kàddu kon na ngeen sàmmoonte ak loolu ñoo ngi leen di ñaanal bu baax it nag li ngeen di yëngatu ngir jàppale ci seen kilifa di ngeen yàlla jàppale leen ci bu baax a baax defal leen ci ndam bu baax ba li ngeen ci yaakaar ak li tax ngeen ànd ak moom sëñ Touba dimbale leen ci.